man de waaye fee jërë ngeen jëf kenn du leen dégg ngeen xuloo kenn du leen dégg ngeen ŋaayoo lu ñëw ngeen nangu ko ndax da ngeen gëm yàlla ah monsieur le premier ministre après le 25 février il y un Sénégal le même il y un peuple le peuple sénégalais il y une vie la vie sur la terre des hommes en Afrique dans le monde dans l'univers moo tax ma waxaat ne bis bu ñu yàlla dimbalee ba nga toog ci palais ba monsieur le maire dénk naa la AFP dénk naa AFP yàlla dénk la AFP teg ko sa loxo pour nouvelle direction bi ñëw ngeen ànd liggéey bu ko defee incha allah rabi bono bokk yaakaar yi gën yëpp ànd ak ñëw benn bokk yaakaar yaakaar naa réew mi dana naat. am na lu bëri loo xam ne président Macky def na ko ci réew mi tey son bilan est plus que positif moo tax ñiy wax ñu wax mukk ci bilan am dañu wax leneen mais duñu wax mukk bilan président Macky Sall te bilan boobu ca nga bokk ca nga bokk da nga koy augmenter étape par étape avec les défis nouveaux qui vont arriver dans un Sénégal qui va connaître l'ère de l'économie pétrolière et gazière avec de nouvelles données, de nouveaux enjeux, de nouveaux appels et de nouvelles exigences. Mais vous êtes de taille pour prendre le radeau en main, pour faire face à tout cela, avec ce que vous avez appris avec le président Macky Sall et les raisons pour lesquelles il a décidé de placer sa confiance en vous, entraînant toute la coalition Benno Bokk Yakaar avec lui, derrière lui, pour vous soutenir. et vous le méritez. Vous méritez ce choix. Vous êtes de taille et vous êtes capable de mener le Sénégal vers des horizons nouveaux, les horizons de la prospérité, les horizons de la paix, les horizons de l'unité.